ñii di waa Ghana dinañu jàkkaarloo ak ñii di waa Nigeria waaye match bi yitteel sénégalais yépp moo di bi war a dox ci diggante Égypte ak ñii di waa Sénégal kon nag gaañ yi nañu takk ñun sénégalais yëpp ñaanal équipe nationale bu Sénégal mu am ndam lu ama am solo ci kaw ñii di waa Égypte dugal bit yu bari ndax bit yooyee kat day compter ci yëf yi. ñu jugee fii ci Afrique dem ca waa Marseille bu ñu sukkandikoo ci Corriere dello Sport gone gii ñu leen doon wax démb tudd Jordan Verretou moom doomu France la ñii di waa Marseille dañu ko bëgg Corriere de Sport li mu xamle moo di ñii di waa Marseille def nañu seen offre bu njëkk li leen war moo di bind bataaxal te bataaxal boobee waa Marseille bind na nañu ko ba yónnee ko ñii di waa AS Roma waaye la ñu bind ca bataaxal ba xaalis bañ ca xayma mi ngi toll ci sept ba huit millions d'euros waaye ñii di waa AS Roma kat jëluñu loolee la ñu xamal waa Marseille moo di su ngeen bëggee gone gi li ngeen ñi jox ñii da ngeen ñu jox ñaaram ñu door leen a jaay gone gi. ci fàttali ñii di waa AS Roma li tax ñu bëgg koo jaay moo di digganteem ak kii di José Mourinho taxul mu neex noone maanaam diggante bi rataxul lool loolu moo tax ñii di waa AS Roma koo jaay yombal mbir ma ñaar ca tegu gone gi doomu France la ñu jugee ci Jordan Veretout jël doomu Argentine bii di Paulo Dybala club yi ko bëggoon ca Europe nag bari nañu lool ginnaaw bi ñu xamee ne kat moom du juboo ak Juve daf fay jugee ñooñee nag bëggoon ko ñii di waa Tottenham ñëw nañu dolleeku ca loolee ki ko xamle mooy Calcio Mercato la mu xamle moo di ñii di waa Tottenham dugg nañu ca waxtaan ba kon fekk nañu fa ñii di waa Barcelone ak ñii di waa Atlético de Madrid ak ñii gi waaye lay jafeel mbir ma kat du jënd ak njaay ndax gone gi kat bu saison bi jeexee day nekk agent libre waaye li ñuy wax commission maanaam neexal gi nga xamante ni agent wam ma ngi koy laaj mën naa tardeel yëf ya ndax kat 7 millions d'euros la agent wam di laaj comme commission loole mën naa yàggal mbir ma waaye gone gi moom jamono jii day jógee ca yuufe ban club lay dem nag loolu mooy laaj bi sam ñuy jógee ci pawlo di balaa jël doomu Algérie bii di Riyad Mahrez moom nag contrat am 2023 lay jeex ca Manchester City waaye ba léegi nga nag yéeyagu ca yàbbeegu ca ngir yokk ko loolee nag tax na club yu bëri ñoo ngi koy bàyyi xel rawatina ñii di waa FC Barcelone ndax Barcelone ku remplacer Ousmane Dembélé lay wër te kii di Riyad Mahrez kat ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax naam ñaari club yi sax bëgg nañu ko muy club bi nekk ca Premier League ba di Chelsea bu Edouard Mendy ak ñii di waa Paris waaye nag gone gi jamono ji Barcelone soobu na ca ndax Barça kat ku remplacer Ousmane Dembélé lay wër loolee ki ko xamle mooy foot mercato ñu jógee ci Riyad dem ci kii Yılmaz nag doomu Turki la ca équipe nationale boobee lay football démb ñoom ñoo doon jàkkaarloo ak ñii di waa Portugal waaye dañoo daanu ñetti bal ci benn ndam loole nag ba ko ñii waa ñii di waa Portugal amee ba noppi ñii di waa Turki moom dañuy toog du ñu dem ca coupe du monde ba waaye seen capitaine bii di Yilmaz moom ba mu jàkkaarloog taskatu xabaar ya la mu leen xamal moo di moom tekki na ay godaasam ca équipe national bu Turki moom nag nekkatul xale ndax am na 36 ans football na nag lu ci tolloog 63 match ca équipe nationale bu Turki na fa 27 but moom mooy ñaareelu meilleur buteur ci taarixu footballu Turquie kon nag tekki na ay godaasam ca équipe national bu Turquie moom nag raté na sax ca match boobee benn penalty waaye nag benn bit bi nga xamante ni waa Turquie am nañu ko ca match boobee moom mii di Yilmaz moo ko dugal waaye daal la mu xamle moo di bàyyi na ca équipe national bu Turquie kon nag Yilmaz di football ca Lille tekki na ay godaasam ci équipe national ñu jógee ci Yilmaz dem ci kii di Robert Lewandowski moom nag waa Barcelone dañ koo bëgg loolee sport da koo dëggal Barcelone bëgg na ko te ma ngay dox ci loolee ngir indi ko foofee muy doxal waaye dirigeant wu Barcelone yi la ñu xamle moo de Robert Lewandowski de bëgg nañu ko waaye yenn xaalis yi moom duñ ko def ci moom lu ci tolloog 60 millions d'euros daal mën nañ ko caa def waaye lu ko ëpp moom duñ ko def ci Robert Lewandowski kon nag waa Barcelone bëgg gi ñu bëgg kii di Robert Lewandowski sport mi seen journal dëggal na ko kon gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah